asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi wax ci kàddu Serigne Fallou Mbacke mi jiite liggéeyu commission d'organisation bi li xew fii kat euh, xañ na lu bees la tey jii mu si gisee ndax ñooñu ci ay boori 4 lan jot benn xabaar bu ne am na mbooloom jóge ci boori garage Dakar jëm si jumaay Touba mais nag dañuy def si ab tawaaf ñu daal ñëw. di leen xaar ban axe 28 ba axe Sëñ Tuubaa gi kilifa gi Sëñ Fàllu daay toog ak taxaw ak seen kilifa ñoom nuyoo ak ñoom saamat ak ñoom dalal leen laaj leen lu seen tànk ñu ne ñoom dañoo ñëw ngir def si tawaaful ifaadati wër jumaa ji juróom-ñaari yoon dem ziar suñu faa ne leen tawaaf moom xamuñu ko ci jumaa ji ndax jumaa ji du kaaba te boroom wutiwul loolu kon te ngeen dellu laa gi ndigal sëñ bi ndax bu joxee ndigal li wax leen fu ngeen di jaar danañ ci am ndigal mën na dal ngeen def seen bëgg-bëgg waaye li ngeen waxee ni moom mun ñu koo nangu ci jumaa ji ndax jumaa ji du place bu ñuy tawaafe ndax tawaaf ifaada mun ko ñëpp xëy moom sol sol weex tawaaf moom du firiwut ne yaa ngi Tuubaa kon ndax Tuubaa moom loolu ziyaaran xam waaye tawaaf moom màkk la la wére ndax màkk la xewe ndax jaamu yàlla balaa wér da kaa bokk barab ba laaj da nga koy defee tawaaf moom Tuubaa mu xamuñu ko ñu xam mooy ziyaar nañ xam jàkk julli julli génn ziar jàng alxuraan jàng xam-xam baa nga toog di jël sa kurus lan fi xam waaye bees mu xamuñu ko te njëlbeen gi sax kilifa gi d'accord nañ ñun waaye xam nga mbooloo mi tamit dañu koy lay fipp ñu forcé wu ñu def ñu tam ñu jaay fi war a jaar mooy alerte waa police wax leen li xaw ne leen teewe ko daal nag def suñu liggéey ndax dañoo dénk lu ñëpp bokk muy jumaa ji ñu jël suñuy xam-xam suñu jot suñu doole taxaw ci kanam daal nag ñun li ñu digal moom duñ bàyyi kenn di ko xët ñu xëccoog ñoom xëccoog ñoom def suñuy pexe ba téye kilifa gi ak ñeent nit police ñëw jël la leen ñu des ñoo ci biir ñu yóbbu lii mooy fi xew. ndax jàppante amoon na wala. na xam nga ñun am na lu ñere mooy wootal ci xikma. dana leen woo dana leen woo ci waxtaan leen njëkk a woo laante biir ñu jëm ñoo waar ndax xam nga bu nee ñoom dañuy tawaaf kese mën naa firi ziar kese waaye tawaaf dafa dafa nakkiraa léegi ñun ñu ne nu nga jublu ñun tawaaful xuddóo mi ifaalati loolu dafa leer léegi mooy mooy ñoom makka daa bokk ci sarti aj màkka nga def tawaaf nga wër kaaba gi di caa bokk boo dugg si ak boo koy boo fi aj booy booy booy si umra wala nga aj ñun nag fii du umrawukaay du ajukaay moo tax duñ bàyyi kenn nga fiy woote loo xam ne nii suñu tuwaa xamu ko diglewu ko ñun daal suñu lañ dox ci leen nekk incha allah leer na